feebar bi am ci àdduna bi de feebar la boo xam ne bu sérieux la ndax boo xoolee Sénégal presque gouvernement bi mu ngi fi waane lépp li nga xam ne mooy dundal Sénégal mooy dundal famille yi mooy dimbali famille yi yëpp mu ngi jógee ci étranger donc bu demee ba étranger bi am problème rek kon mooy wane ne àdduna bi yëpp am na problème te lii nekk na loo xam ne dan ko war a jàppee lu sérieux parce que bu demee ba nga xam ne lu toll ni Màkka tëj seen kaaba lu toll ni abru Cheikhu Tidiane tëj seen kaaba war nga xam ne lii lu sérieux la te boo xoolee ba xool suñ kilifa yi ku mel ni ay Cheikh Tidiane si yi yàgg nañ ko wax ndax boo xoolee sunu boroom moo wax ne wa lillaahi walillahi junuudu samawaati wal ard mooy yi nekk ci kaw moom moo fa ne li nekk ci suuf moom moo fa ne te lépp loo xam ne mu ngi jige diggante suuf ak asamaan moom mooy chef kon lii moom moo ko wàccee te yàlla lépp lu mu wàccee am na lu tax mu def ko mën naa am lii bu amul woon guerre mondiale am fii ci senegal walla ci àdduna bi kon nag boo gisee yàlla wàccee lii mën na am lu gën la ci ñun te moom mi ko wàccee dinañu ci dimbali ba mu set te incha allah gouvernement bi tamit mu ngi ci jàpp Macky sàll mu ngi wax dëgg yàlla man fonkoon naa ko waane gën naa ko fonk ndax ku bëgg réew mi la ku bëgg Sénégal la ndax wax bi mu wax na dañ ko war a respecté ñun ñëpp dañoo war a toog suñu kër yi ba pare fexe respecté li mu wax guddi gi ñuy bañ di génn. ba pare di raxas suñuy loxo ba mu set ba pare di ñaan yàlla liy jóge fi te incha allah yàlla dina ko fi jëlee ndax yàlla moo ne arayta allazi yukazu bi diin fa zalika allazi yadul yatim wala yahuddu ala daamil miskin mooy ñun tamit ci feebar bi képp koo xam ne ci gox bi nga nekk tane nga fa ngay dimbali miskin yi nga xam ne amuñu ndax li indi feebar bi yépp mën naa am ci loolu yëpp ci la bokk ndax nit ñi ni meloon bu njëkk ak léegi bokkul ndax nit ñi njëkk ñi dañ daa dimbalante dañ daa jàppalante dañ daa yéenante jàmm dañ doon waxante lu baax di demanteel jàmm léegi nag koo gis lim lay wax ak lu muy def nekkul benn yéenante jàmm bi amul moo tax lépp lu yàlla def rek daf ñuy won boppam kon ñu ñëpp ñu jël suñu xel delloowaat ko ci yàlla te ñaan yàlla liy jële fi si jóge fi si jàmm te incha allah bu soobee yàlla ak yonent bi yàlla dina ci defal jàmm ndax chaque jour yéen ngi dégg bitim réew lu fay dee te ba léegi ñun yàlla mu ngi ñuy defal sutura kon sutura boobu yàlla na yàlla def mu continuer incha allah ci barke yonent bi baax na jërëjëf ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di ñaan yàlla Sénégal def fi jàmm ñaan yàlla yàlla def ci àdduna bi jàmm incha allah merci jërëjëf bu ñu fi waxee lu baax ngeen xam ne loolu la bu ñu fi waxee erreur tamit ngeen jéggal ñu rek. te xam ne ñun ñëpp benn lan parce que àdduna moom li nga yéene sa bopp loolu ngay yéene àdduna bi loolu nga yéene nit ñi baax na jërëjëf merci.